Mhm. Euh, tey jii nii euh, par rapport au troisième mandat au président Macky Sall. Mhm. yow ne lan pas si veux dire ni Je <laughs> ni mu Je Je man man lay da ngeen ma ah président Macky Sall. quand uh-huh. il ko en 2019. Mhm. dafa ñoom la andal yëpp di liggéey muy maanaam biir partem ak coalition bi nañu dama bëggoon c'est pas tout le monde qui était là mais par dafa gisante ñëpp nañu dama bëggoon pour waxi beneen mandat yooyu ñu teg ko ci suuf hmm. bañ ci wax c'est sexaluñu suukar ñun ñëpp ñu ànd ñu nangoo ndoo loolu ngir argument yi nga xam ne moom la joxe argument yi mu joxe mën naa ci d'accord ak moom euh, on doit travailler on doit travailler. est-ce qu'on travaille oui oui oui on oui on travaille on travaille on doit travailler.

ni oui ni non moi je suis d'accord avec vous. Nous, liggéey vous présente damay présenté waat coow dina De façon barré. duñu Nous, duñu duñu vous non duma Vous, duñ vous ci biir on va être trois ans et demi en campagne électorale.